coow li am ci Vinicius Junior nday joge Real Madrid ngir offre exceptionnelle boo xam ne am na ko loolee dina ci dikk ci ay xët yu yaatoo yaatu rumeur la wala du rumeur Fermín López ak Iñigo martines Vinicius Junior ba tey Lamine Yamal Sadio Mané ñancu international sama waa ji moo di yóbba saf na sàppa xorom masiyaar leen samay abonné bégg leen kon kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam yal na yàlla defal leen jàmm suturaal leen ci barkeb njool màkka yéen ci info gis ngeen ginaar yi di sob noonu loolee bu ngeen ko dégg xam ne dëgg-dëgg yéen ci xibaari suba gi en temps réel ñu commencé ko ginnaaw bu ngeen abonné xam naa ni ñu bari def nañ ko mais ñi ko defagul bala ngaa continuer rek euh, coppatil ma ndànk abonnement bi ndax lu ma mën di dugal rek da ngay ñëw rek mu droite ci sa kanam euh, abonné ci seen bi jàppalee la seen bi Vinicius Junior a ngoog yéen a ngi gis ni euh, fan yi bari na ay offre yu jóge fu ci ne lu ci mel ni sax daanaka Arabie Saoudite ki nga xam ni maanaam tegal na ko ab sijaada boo xam ne yaakaar naa ni lépp da koo def ay dinaar maanaam alal ju bari joo xam ne ma ngi nekk fële ca Arabie Saoudite temm nag taxaw fi mu toll nii merengue yi nag di Real Madrid lank la ñu def ni loolee di contrat kii di Vinicius Junior nunu mën a def sax ba jolal ko ba mu dem ba deux mille sax danañ ko def ndax football kat la boo xam ne bokk na ci jën ñi téye Real Madrid kon information boobu ngeen di dégg muy circuler démb ba tey fausse information la euh, kii di Florentino Pérez di président ba lu mu mën a am yokkaat contrat ba ba mu gën a yaatu ba nga xam ne maanaam day nekk brique boo xam ne brique plein lay doon maanaam door ko ci mu toj dootul yomb loolee dina am solo tey nekk euh, di mbégte ci képp koo xam ni yaa ngi euh, topp kii di Real Madrid ak Vinicius Junior xibaar yi ñu continuer ko ba tey ak li nga xam ne daanaka mooy weekend bi commencé tey nga xam ni euh, tey ci weekend bi Barcelone daana daje ak équipe bi la nga xam ni moo nekk euh, ab dëkkandoom di Espagnol de Barcelone match décisif lay doon nag ndax nee naa leen catalan yi dañoo nekk ci alire boo xam ni bu neex la mais tamit <laughs> attention euh, lii di FC Nal ba Barcelone danoo nekk ci euh, ak alir ñoom it ndax victoire lañ mujj am ci gonay Madrid yi nga xam ne yaakaar naa ne mooy Atlético Madrid bu ma juumul ñoo leen dóoroon match bu mujj kon kenn ku ci am nga victoire euh, Barça dóor Real kon fi tourni seen match boobee dana nekk match dëkkandoo yi bu neex sax kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ci li nga xam ne mooy weekend bi Real Madrid Valence ci information yi amoon match boobee dañu ko randal ba jëmmi jamono. a Fermín López mi révélé ni Inyo mi nga xam ni yaakaar naa ne gis ngeen ni moom moomee la xam xamle ci ay kàddu mooy euh, mën na nekk capitaine donte tëkkul barasaat capitaine bi fële ca Barcelone waaye dañu gis ni ni muy jaaba jongee ci biir terrain bi loolee lu ama am solo la ci équipe bii di Barcelone jàppale na ko bu baax a baax ndax yaakaar naa ni fi mu toll nit mën naa doon capitaine am ku ko gën am taxawaayu capitaine ci boobu équipe te du doon capitaine bi loole nag ñu jàpp ko ci ñoom ñaar ñooñee waaye nag ak al ilal ak al naser match ba euh, nga xam ne kii di international sénégalais sama waa ji sànq euh, ñaa Sadio Mané ñaancoo international xam ngeen ko bu baax a baax sama gars yi ak kili di euh, international sénégalais bi nutu seer Kalidou di Koulibaly match ban doon football fële ci Arabie Saoudi gis na ni dio sénégalais bi <laughs> Sadio maane Kalidou di Koulibaly mayu ko dara mais Kali saa waa boo ko blessé di nga problème te def ndànk rek te ngaa def ndànk kali match boobee gars yi damay tooñ rek gis ngeen ko mu amoon solo bu baax a baax mais nag ndam demul ndam dikkul match nii la mujjee ñaari équipe bi kenn ku ci ne pattal na sa morom benn loole nekk maanaam ay xarit yu yu tàqalikoowul benn yoon reste euh, ay xarit mu am solo euh, weekend bi ci kanam tuuti di revue de presse bi danañ yaatalaat yeneen information yu wér te wóor samay abonné encore une fois bégg naa leen bu baax a baax tey kontaan ci yéen jaa ngeen jëf.